بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم و... رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الحقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرن توبا دا فام رول بومو جوخ خالي رول بو امبورت بو ام امبورتانس تي ميندم باي خول لو باري باري باري لا تاليف جاغليل كو ndawني با تي صاح تيري بي دا فام يو خامي دا كوي تودي يوبلو ndawني ولا يوبلو غو خامباني ولا لي خيتي ndawني باغ بايي تي خان تي ليغيل يونت بي ak euh, yeneen téere yoo xam ne ndaw da ciy nekkaale nga ne da ko bind uniquement moom pour ndaw donte mag ñi mën nañ cee jariñ kon loolu lan lay wane ndaw ñi yitteel nañ ko ba ca dayo ba bàyyi na leen xel lool ndax xam ne ne ñooy ëllëg nation yëpp la fa la leen di sauver la leen di jëmale kanam lay lay doxal histoire booy xool histoire moteur l'histoire mooy mooy xale te xale ci lislaam li koy définir mooy li dale juróom euh, fukki at ak juróom-ñett ba ñeent fukki at ba ci ab yonente sax bu ñu koy yónni xale la kon te yonente yi ñoo changé histoire lii rëy lépp ci histoire boo ko xoolee ay ndaw ko defoon kon moo tax woote boo gis njàngale moo gis diina joo gis la muy sukkandiku pour tas pour jëm kanam mooy ndaw ña moo tax suñ ci waa bàyyi xel lool lool ndaw ñi ba bindal leen téere yooyu téere yooyu nag bind ko ngir ñu koy barkeeloo teg fa da ko bind ngir ñu war koo jëfe ak di ko jariñoo kon nañ delluwaat ci téere yooyu buñ bëggee doon ay murid saadix buñ bëggee doon ay ndaw ñu amal njariñ sunu bopp waaye amal njariñ société bi ñu dund amal njariñ humanité gépp ndax sëñ Tuubaa lim ci jàngale luy jariñ ndaw zahir ak baatin a ci waaye luy jëriñ day ndaw tey ak ëllëg ji ci wàll gépp mi boo xoolee sëriñ bi téere yooyu mu jagleel ndaw ñi da nga gis ne tëggee na ko noo xamee ne incha allahu taala xale bu ko bàyyi xel danga nga yiw da baax waaye danga doon ku am xam-xam da doon ku am yar ku am i teggin waaye ku am bëgg-bëgg ku am vision ku am objectif ci sa dund te ku am fulla ku am foo jëm nga ndax lim leen njëkk defal mooy tazawudu sigaar ila muy raaya am na nit ki wurut doon kuy ta tañaxu kuy def fum la neex jëm waaye nit pour mu tekki ci dundam il faut mu am objectif loolu lañ njëkk a fexe titre bi rek da koy wane nit dafa jëm yéen ndaw ñi seen objectif daa am foo leen jëm mooy ajjana adduna bi taxu leen a jóg de ajjana ngeen jëm loolu bu ko teelee def ci yow nga xam ne yow sa dund am na foo ko foo ko war a orienté du la fu la neex nga koy jëmee doo def du caagi ne sañati nga def la neex waaye da war a doon nit koo xamee ne sa dund gépp li ngay jëf mooy lu lay jëmale fii euh, beneen luy gën a wane nim la nim bu la jëmalee àjjana ba noppit da lay ciy dimbale fexe ba tëral la loo xamee ne dana tax yoonu àjjana woowu loolu cay xëcc moo tax beneen téere bi mu tudd jës bëtu sixaar luy xëcc ci ndaw ñi ba duñ sax ci caaxaan duñu foo ndax l'islam dafa am lu mu indi lu mu jàppe xale dafa ne yaa allahu allazi xalaqakum min dofin su ma jaxale min baadi dofin quwa su ma jaxale min baadi quwatin dofan wa shaybatan noonu mu defee mooy xale force la l'islam li mu jàppee euh, jeunesse mooy force égale vitalité egal force loolu nag force boobu boo ko bàyyee rek mu doon énergie bu neen ci ay caaxaan ak ak ak lu am lu amul solo lay dem il faut nag pour force boobu mi humanité mën cee jëm dañ koy canaliser euh, jëme ko fenn boo ko defee nit ki mu mën a jariñal euh, ci ci ci ci ci ci ci ci boppam waaye jëriñ mi euh, def moo tax sëñ bi xale liñ ko war a fexe ba dindi ko ci ay caaxaan dindi ko ci kii waaye fexe ba canaliser dundam gépp mu doon xidmatul muxtaar lépp looy def mu dugg ci cadre jëriñ Euh, sa diine jariñ sa saw askan jariñ euh, fa ngay dund jane jariñ sa société kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax ci ne ñun wala xale bu murit wala ndawul murit am na lum sañ waaye am na lum sañut xam ne dundam am na fu ko Sëñ Tuubaa jëmale waaye am na it fum ko bëgg énergie bi ko yàlla def mu bañ koo gaspiller ci ay caaxaan aki i fo waaye na ko jeexal ci an laibin li xidmatil muxtaar bàyyi fa ay caaxaan lépp loo xam ne amul njariñ doo ko yokk ci diineem da ko yokk ci àddinaam da ko yokk yokkal daal mu bàyyi ko fa waaye jël dooleem jëpp jëme ko ci euh, service euh, servir euh, xeetam wi servir boppam tam njëkkee ko laqrabu law laa tàmbale sa bopp jëmee ko ja topp ba mu àgg fa mu mujje kon loolu gis nañ ko ci titre yi muy defal téere bi boo demee tamit biir téere yooyu nim ci da cee tegal xale bi ab aw aw aw yariin yar xel yar euh, yar ko ci xaqiida bu sell ak tarbiyal imaniya la ko ci defal loo xamee ne ngëm-ngëmam euh, ay gis-gisam euh, idéologie bi mu war a gëm bi tax dundam mën a tegu yoon mu doon pas-pas bu sell ci yàlla li mu war a xam lépp mu leeral ko ko ndax nit ki ku xamut lu la fi indi lu tax nga ñëw fii lu la fi bàyyi ci kaw suuf loo fi war a nekkee te loolu xaqiida loolu rek lay lay leeral loolu boo ko xamut sa dund gépp day perte sa dund gi day fawda day day caaxaan moo tax sëñ bi lim njëkk fexe xale bi pour mu mën a jariñ boppam mën a doon force boobu li lislaam jàppee xale pour mu mën a mën a mën a sax di nekk ab force buy jariñ il faut mu am xaqiida euh, salima muy pas-pas bu sell moo tax téere yim jaglee xale yëpp dañuy seetlu ne pas-pas bobu do ko ci leral xel lol leral ko bu baakha kon pour ñu mëna jariñu jariñe nañ baye xel xaqida bobu jàngaat ko bu baakha a leral ndax moo ñuy yaay kan ak kuy sa borom lu la fi baye lu fi indi lula la fi baye no fi war nek ci kaw suuf euh, benen tombu bu am solo bu bi téré yim jaglél ndaw ñi mu ko ci faral di bàyyi xel bu baax moy li ñaan at tarbiyal islamiya fexe ba nit ki xam nu muy jaamoo borom xam ay faratam xam euh ruhu din moy li tax diine wàcc ci kaw suuf li tax li muy jëriñ doomu adama nga man doon nit ku ku bëgg yàlla ku mëna a jaamu yàlla mëna a mindeef yi sa dund gépp luy lor mindeef du ci nek ngay bàyyi xel yàlla di xam al halal wal haram muy loolu da ko teel a def ci xale yi ba téere yi muy bind da ko ci teel a dugal ndax nit ki teel a al ruux al al al al al fiqhi al waasi diini teel koo roof ci xelu xel kon fiq boobu mu ñuy jàngal loolu rek la ci jublu ngir ñu teel a ko orienté leen teel a jël seen pouvoir yëpp tënk ko ci loo xamee ne lu amal njariñ nit la ba du dérivé di jëm ci lu amul njariñ waaye yëmu ca at tarbiya al ihsaniya da koy bàyyiwaale xel nit ki mooy yar nit ki ci bëgg yàlla ak jege yàlla ak di bàyyi xel yàlla ba mel ne yàlla ngi sa kanam bu yoonu tasawuf loolu da koo teer la ndax xale boo ko bàyyi rek caaxaan la la jëm loolu teel na koo seetlu ba an la ay bind xidmatul muxtaar moo tax mu teel a jëme xale yooyu ci yu kawe yooyu ci xaqiida ci fiq ci tasawuf loolu looloo tax mu jëm kon nañuy bàyyi xel foofu mu ñu jëme te xam ne fa la suñu njëriñ nekk sëriñ bi dafa bëgg tabax ci téere yi eh, boo xoolee téere yim taalif di ko taalifal ndaw ñi am na ab xale bu mu bëgg tabax ab tibu xale bu bëgg tabax xam nga maa ngi dégg léegi ñu naan ay nu ñu int euh, intc mais sëñ bi moo njëkk bëgg tabax ab tibu xale bu bees wala waxambaane bu bees ci senegal ni mu ko tëralalee ci téere mi ak ni mu ko mooñee Euh, wane bu bu ca noppee nga jëfe lim la wax nit ku bees la am nit ku bees kooku nag mooy mën a doon murit saadiq ku kawe himma ku pëstéefam kawe koo xam du nangu benn défi ci kawam lu dul àgg ci yàlla àgg ca atteindre la gën a kawe la gën a baax la la gën a sell ndax lu am lu nay àgg ci yàlla gën a kawe lépp xam nga tekki am alal tamit yëpp eh, eh, yu ndaw la waaye yàlla yàlla wa inna ila rabbikal muntaha loolu alxuraan wax yàlla moom luy kawe fa la kawe mën a yem kii nag lim la bëggal àgg ca yàlla kon leneen lu dul yàlla rek du tuuti la ci yow kon sëñ bi lim tibu nit bi mu bëgg bu kawe la kooku mooy murid saadiq murid saadiq bu bu mat boo xamee ne xolam bi yàlla rekk ci nekk bëgg yàlla fees dell ak mbaax fees dell ak leer fees dell ak yërmande fees dell nag ak njariñ ñeel boppam ñeel mbindeef yi waaye mu xam ne pour loolu mën a amit ci e, yar ay jikko la mën a ame waaye yar am xelam bëggloo ko njàng moo tax lim njëkk a def fi mu jëmale boo xool am na ay ay ay ci biir e, kii bi ay ay ay ay ay junj ay ay ay ay ay jubluwaay yum ñu rëddal ci jàng boo xoolee tasaw sixaar ndénkaane bi ñu ci njëkk a dénkaane ba loolu man maa bëggoon sax bi may wax falaa naroon yem wax waxtaan wi jël ko jàngat ko rek muy ñetti bayit yaay sibyan la tastaxilu an il huda wa bil ulum istaxilu fastaxilu bil xafdi wal tilawa wa tanabu majaalu saqa wa laazimu man laa yazaalu abida li rabbi ilaha huda fa kullu man ila axir loolu boo ko analysé woon doy na sëkk ma ma ma noppi mooy xale waxtoom yépp da ko war a occupé buñ ko bàyyee ci neen du jariñ boppam du jariñ minde fi ci neen ay for rek lay dem istighal la tastaxilu anil huda kon il faut occupation fa iza farata fansab xale dafa war a occupé occupé ci lu baax nag beneen bi it mooy droiture mooy xale nañ fexe ba teg ko ci hanil laa tastaxilu anil huda istixaala nga ci waaye la ngay occupé sa bopp di ca ngat-ngat yi na doon lu dëppoog mbaax gi yàlla tëral mi kon dañu war a teel a ndaw ñi ci lu baax kon ñaara ngoog tastaxilu anil huda bil ñetteel bi mooy xale buñ fexee ba mu bëgg lu baax teel a sóobu lu baax nañ fexe it ba xam ne yàlla defal na ko xel moo xamee ne mën naa sauver humanité gépp mën naa àgg ci xam-xam dayo ya fa gën a kawe kon nañ ko gaaw a ci xam-xam wa bil ulum istaxilu ndax amul njaboot gu muy amul lu kii xel mi féex na na ko gaaw am am am imaam Ghazali mu bees man ku ne ci xale boo jur rek mën naa doon imaam Ghazali mu bees xale boo jur mën naa doon médecin bi gën a kawe tey jii ci àdduna bi ñi ñuy wax ñépp ci xam-xam ca tubaab yaag ca euh, waliyu yaag ni ci yàlla yëpp sëñ Tuubaa teel na xam ne euh, xale bu ne nu ñu koy waxee sax ci wolof euh, ku ne neen xale mooy déet gone gone mooy kune mooy ab ab ab ab ciment bu tooyo gudd la boo ko tooyalee nag ba def ko nii mu mel nii waaye ku ne la mën naa doon lu ne kon ci xam-xam nag rawatina buñ ko ci teelee jëmale mën naa doon loo xamee ne mindeef yi kii sauver humanité tawat yi fi am yëpp ñàkk geeg mettit yeeg euh, fa faw seen i gisuñ ci waa bëgg mën naa am seen i doom a koy taxawal kon nag gaaw leen orienté leen ci teg leen wa bil ulum istaxilu bu ko defee nag bu ñu nekkee ci xam-xam lépp lu xam-xam laaj ci xefdu ak tilaawa ak ak yooyu ngeen def ko kon indil nañu occupation indil nañu mbaax ak njub indil nañu sakk xam-xam indil nañu benen élément bi moy wajtani bu ma jari sax moy al bi'as nadhifa environnement bu set bu bu boo xamee ni nit ki xale munte évoluer ba ag ci ak matam ak selam bax googu lolou gis nga ciment bu waw bi ciment bu toy bi boko baye ci naaj wi leg mu ki kon bi ni nga environnement bu bon xale bi mun évoluer ba mbóot yooyu yàlla ndëxañ ci moom boo ko bàyyee ci environnement bon rek day day deewaat moo tax wàjtani bu ma jël saxaawa environnement fa fi yëpp fa fu nit mën a yàqee eh, eh, eh, yooyu mbóot ak ak ak yooyu di nelaw te nekk ci moom mel ne grain ab ab ab kii ni ñu koy waxeeti ab ab doomu doomu kii bu juddu bu bu màggagut te ne ci moom. boo ko bàyyee fu bon rek kon loola day dee kon nañ ko bàyyi ci wajtani boo ma jël shaqawa teg ko fu sain fu sell mu mën a évoluer ba àgg ca dayob mbaax ba mën a sauver nit ñi indil euh, histoire indil mbindeef yi lu leen di jariñ tey ëllëg kon sëñ ci ba teel nañu ko rëddal beneen biit pour xale mën a àgg ci baax googu sëñ bi doon jëm àjjana gi mooy euh, la gën a baax la gën a sell doon muri sax àgg ci yàlla yooyu mu lay rëddal pour mu mën a amit wala zi moo mën laa yazaalu abida moy fexé ba am andondo yu bax ando yu bax ak be xaw nañoo ndir way bokku man nga nek fu baax ba nopi mo ando bax man nga am ando bax ba nopi do nek fu bon nek fu bon an kon bu ne ci element yow bu ne bos bopam la andondo bu bax moy tax ba mi wax euh huqal buka euh, di indi ku bëgg dem ci yalla lam tuddu wa sohbatun wa hiya ixwaanun lahum wa rufqatun wa hiya ixwaanun lahum himamun ku bëgg ak ci yàlla fokk nga am ñoo àndandoon kon muy xam sëriñ bi ngay àndal mu lay àggale ci yàlla wala ñu mel ne yéen ñëw ci réew tuwaab di fi wut si donte adduna la waaye ab jullit lu muy def adduna ak laaxira du ci teqali ko yàlla ngeen ci wut alal ji boo ko te jaamewaat yàlla boo leen amut bii a nadifa fu baax fu mel ni fii ak àndandoo yu baax yu da da ngeen di neexee influencé lu jóg fëkk leen te bu li leen di fëkk bu yàggee li leen fi indi woon sax boo nekkoon ci caaxaan alal ji ngeen doon fi doon wutsi ak njàng xam-xam bi ngeen doon wutsi doo leen ko mën amati kon am am ay ay àndandoo yu baax nga rus leen rus nga sax ñu lay gis ci lu bon loolu moo mën a dimbali nit nit sëñ bi wax na ko démb nee na euh, ñun suñ bopp li lii suñ bopp lu néew la leneen mooy def ci ñun kon àndandoo ab luy lu lay mooñ la àndandoo dalay mooñ day mel ne ab ab ab tëgg ni muy tëggee li muy e, wurus bi mu yor kon àndandoo yu baax pour xale li ko sëñ Tuubaa rëddal mu mën faa àgg ci mbaax ak sell ak jariñu ak jariñe ak dayob mat il faut na na xam ne àndandoo ab élément bu wala zimma man laa yazaalu abida li rabbihi ilaa xudaa àndandoo boo xamee nag daa am fu mu fu mu lay jëmee da lay xëcc ci lu baax foo ko foo ko gisee day mel ne li fi la sa sëriñ di jëmee fa la lay jëmee muy ci yàlla rek qaidan wala yazal wala yazima man la yasalu qaida ila li rabbihi ci yàlla lay jëmee ak la neex yàlla lo xamé sa njariñu zahir ak batin dajane waye sa so gisé nit ki di ànd ak mom te fa ngeen di jëm du lu lu neex yàlla rek stop baaxutul wa wala yazal wala zi ma la yazalu abida ila rabbi waaye ko xamé ne ilahu dahu qaida ci li neex yàlla toujours ci lay gëne ci lay womat ci lay jàppale bu ko défé lolu moy rëdd wi sëñ bi ردل خلي بنن بيت موي المبادرة إلى إلى الخيرات قبل فوات الأوان موي لولو وحنا كجبير وقت نيم قب خمسة قبيل الخمسة كبير الصغار نت كي ناو تابو غات لا أم صلو gëna أم njariñ ci doomu adama te dafa gat مراولة kon maximum possible loo man a exploiter temps boobu pour jëriñu euh, euh, tey ak ëllëg na ko def moo tax indi na ci biir euh, tësoo sixaar ay ndénkaane yoo xam ne ci wax yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam la ko jukkee muy juróom a ngi ku am na ci gaaw jëriñu balaa juróom a ñëw ñaan san ñoo ko yooyu yàlla mu ne ndaw ab temps su gàtt la te nit ki la ngay tekkee tey ak ëllëg yaa koy tabax te diir su ndaw ci ndaw nga mën a gaawet defar sa mbaax boo bàyyee ba mu faat la saye ndax ni nga ndawoo ne ni nga ndawoo ngay màggate kon nag boo màggatee boo ndawee lu bon màggatee lu bon yomal xayam loo fi fekk waliyaasu billaahi taala kon yéen saa sam nee igtanimu xamsan xubayl xams noonu la ko suñu bàlee rek muy bi ci njëkk sag ndaw balaa sag mag a ñëw euh, الصحة قبل السقم موي وير ا أه، دو تياغيني موي ام وقتو ني دو لي ايفيدان دي بو نياك بو تاوت نيو ريغا خامني لينن امنا تي ني بري خمو ني نجاري نون وير غير لودول تاوت نيو لو باخ ليغا مانو ديف ليب بو تاوت نيوي تي غاي دورو خامني ديكاي rawatina nag tawati dee wañu xees bi lay taala yan ay nayax yëtu sax mosuma day ñëw waaye nayax yan saa salaam it nee ne alal it euh, lu fiy jaar jaar la bala yàlla dafa lay gaawal jariñu ci jariñe ci ay doole daa am yoo xam ne ni ma ni yàlla defee yum euh, ni ma waxee ci ne ndaw force la énergie la doole ju la yàlla dénk la yeneen yii yëpp doole euh, énergie bu fi jaar la waaye du du lu sax kon nag gaawal profité ci nu gën a bare nga jariñu ci gaaw jariñe ci balaa waxtu waa jàll bokk na ci yooye nag mooy alalit lu fi jaar jàll la boo ko amee gaaw def ci lu baax jariñu ci waaye jariñ ci mbindeef yi beneen bi it mooy ak temps euh, waxtu jot jot jot ndaw moom yàlla dimbali ko moom macha allah jot lim ci am kenn xam nu mu toll waaye bu ko am mooy sëñ Tuubaa waxoon na la occupation ci bee occuper sa dund ci lu baax boo ko occupé doo am jot boo màggee tekki ndax alxuraan dafa ne fa izaa faraxta fansab wa ilaa rabbika farxab am na ci sax doomi sëñ Tuubaa sëñ sooy bu maanaam noonu la yare moom yaram bëggut kuy loxo yi neen nañ bàyyi lii nañ def léegi donte nag waaye nag ci anam goo xam ne nag du dëppoo day dëppoo pédagogie xale xam nga xale boo ko tegee loo it attanu ko niñ ko bëgg waxee am na nuñ koy occupé ba du. am temps bu mu defee lu bon donte loola sax day niru lu neex wala lu woyof ci moom waaye na na na nekk occupation bi sëriñ bi mu jël nag mooy alxayaatu xablal mawt mooy dund nit dund it lu gàtt la ci dundu doomu aadama dundu doomu aadama ci ësël la woon ba nga nekkee ci ba yàlla bindagul dara nga newoon ca moom loola kenn mënut a wax ay milliards yi ay nangam loolu kenn amut amut tur ci ab lim. fii lu gàtt la luñ fi defee ngir lam ñu programme woon démb buñ jékki-jékki woon jëlee ñu fee indi ñu fii ci àjjana ji wala sawara ñu ñu contesté mu ne ah da ngeen a bëgg nee na léegi nee naa ñii sawara la ñu war a dem ñii war ñii àjjana pour nag ngeen prouver dem leen bu ma leen digalee li ma leen waxoon lii ku ko defaat dangay ngay dem àjjana ko defaat lii nag ku ñëwaat fii lay fii lay fii lay leere fii lu gàtt la ci suñu dund pour rek prouver la yàlla bëggoon ci ñun. bu ñëwee ñee yàgg yàgg da ngay yaafus wàccandiku ñenn ñi lànk ñee dem moo tax ñee bi iyaazu billaahi la jëm ca feneen fa wal bi la ñeneen ña jëm ca la neex kon loolu li muy gàtt gàtt gaawal nag prouver ci sa nangul yàlla gaaw def ci lu baax gaaw tabax ci sa àjjana bu ko defee nga jëriñu tey ëgg kon lii moom euh, euh, beneen bi it lii fi sëñ bi indiwaat mooy أه، ومن تدارك الذي قد فات من اللغة وعمر الاوقات بالتوبه النصوح والاقبال الى الاله فاز بالكمال موي نيت أه، مباخ أه، نين كو وارا ديفي سي خالي دو تياغي خالي رك مو وارا ديف لو باخ يالا بونتم باب الله لم يكن مرتجا يالا ابونتم دوغو تاج موك يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله inna allaha yaxfiru dunuba jamian innahu huwa alxafuru rahim yàlla toujours mi ngi buntam di naan ana kuy kuy kuy ku ku ku kuy kuy tu kuy e, def lu bon te tuub ma jégal la kon nañ xam ne bu la sang ndaw ñi nga xamee ne teelu ñoo jàng waxi sëñ bi ba fawee seen ndaw nañ xam ne buntu yàlla teewut man ngaa gaaw rattrapé li la daboon li la rawoon gaaw tabaxaat lu toll ne la mag ña defoon ci tuub donc yéene ju rafet ak jël sa lépp jox yàlla nga agat fa kamal ndax li ñu sëñ bi bëggal lépp rek moy ag nek perfection moy être homme wala euh, être parfait moy don l'homme parfait bi nga xamné ne yonent moy mooy gëna mat wali yu gën ci topp ak ña ca topp euh, yonent yee ci topp ak yonent yi ba ag ci fofu mat gogu ñu yalla nangul nak du ci gi ne ndaw rek moy koy tàmbalee ci ndaw tabax ko ba magña waye donté ña la euh euh train bi raw na la mën nga koo koje ca beneen gaar ba ca kanam muy sang daw boobaa ya baabullaahi lam yakun murtajaa nga dugg te xam ne incha allah fa ñëpp àgg da nga fa àgg muy qad aflaha almuminuun alladina hum fi salatihim xaashicuun walladina hum ani lagwi mucriduun walladina hum li zakati faaciluun walladina hum li furujihim xaafiduun ila axiri kon razaqana allahu alsalaha walfalaha fi dunia wal axira wa العمل لما يحب ويرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله